waa laa donc euh, man la Matar Ndiaye. Mhm. directeur bu école Pikine 23 mhm. euh, directeur tey dama gis ay see bokk jom ànd ak ak GFC ñëw di nettoyer école bi. Euh, initiative boobu loo ciy wax. initiative bi de fi mu ne xol bu set laay wax parce que wax dëgg yàlla yi koy def bareetul fexe sax am na fan lañ ñëw ne ma directeur dañoo bëgg dimanche ñu ñëw nettoyer école bi semaine nationale. de la propreté parce que c' est lancé par le ministre vraiment ñu ñëw nekk ASC boo xam ne ñëpp xam nañu Guédiawaye vraiment ci suba la ñu gën a xam ne tey xam nañ leen gën nañoo xam te ne ci propreté xool école bi nu mu mel tey vraiment macha allah. vraiment tey moom sama xool sedd na trop trop ci ASC boo ko jëm seen devoir lañ def aussi wane nañ ne ASC du football rek ASC c' est culturel ASC c' est du social ASC c' est l' environnement c' est tout vraiment tey bokk jom wane nañ li seen mag ñi daan def tey xale yi bokku ñu def nañ li seen mag ñi daan def. Euh, bientôt école day ubbi le daanaka fin léegi ñu ñu daanaka ñu ci fin du mois le 4 ah. Euh, ñoom ñu mobiliser def lii tey boo doon dénk tey équipe yi nekk géejewaay yëpp lan nga lan ngay wax ci loolu. waaw lii de su ma sañoon ASC yi bari nañ fi des fois ngeen leen di abal sa ay école ñu fay entraîné te suñu paree duñ fa def dara mais bokk doom fii entraînement duñ ko fi def xanaa réunion la ñuy ñëw àbb saa ma ne leen seen école la. tay ñu à leur propre initiative à leur propre frais ñu ñëw vraiment defar école ba mu boy ba seen rak yi suba suñu ñëwé man jambatuma dara vraiment l'école est prête à accueillir les enfants seen rak vraiment tay mom sama xam dafa xam naa seen rak suñu ñëwé jeudi dinañ xam ne seen mag yi taxaw nañ leen jàppale leen ci école wala mom dinañ ci bëgg trop ñoom te dinañ tax ñu gëna fas jom xam am nañ ay mag yu baax ay mag yu responsable sa dernier mot ah sama dernier mot de moy di leen ñaan leen ñaanal seen ASC bi fa ñu bëgg a ñoom ñoo ko xam yàlla na ko yàlla def ba ñu àgg foofu fa bokk jom nekkoon yàlla na fa bokk jom delluwaat loolu laa leen di ñaanal ci xol bu sedd buy vraiment très content te lii moom dama ñaan rek mu nekk lu pérenne loo xam ne day continuer te dootul dakk vraiment promettre nañ ñu ko incha allah lépp loo xam ne ci école bi war nañ cee dugal seen loxo man dinaa leen aviser parce que sama xol sedd na si ñoom sama xel dal na si ñoom te war nañ ma ko vraiment jërëjëf bon vent à l'ASC 看到吧。